Ah, ah, waa Gambie am nañ problème de Aïda Samba ngi Seydi Abbas jaaju ayda demoo pour way kese yow mii da ngaa da way ba pare toog fa ñaari ñaari at. ah, ah fa nga dëkk moom. ngay da um koor waaye balaa nga um koor na fexe ba waa Gambie xam ne yaa dàqawee ci Sénégal. la ilaha cey Gàmbi ñoo ngi nii